Euh, dañuy sant yàlla parce que bi ñuy nekk ci campagne bi dañoo waxoon artisans yi ne président de la république Macky mooy maire candidat bi li mu defal bëri na ngeen ko njukkal war ngeen ko woteel. li mu defal ci ban wàll. li defal ci wàllu formation li mu defal ci wàllu financement li mu defal ci wàllu équipement. li mu defal ci wàllu yëg goo xam ne yëg na ko secteur artisanat. alhamdulilah da appel boobu dégg nañ ko diggante la ko tàmbalee Euh, artisans yi en tout cas woote nañu massivement pour le président daal la république ba tax moom itam ginnaaw bu ñu sant yàlla ñu koy lancé gën a ñaax mu gën a jël euh, secteur bi en compte gën cee def euh, ay moyen gën koo bàyyi xel bu baax daal